daleen ak jàmm mbokk internetu Sunugox TV yëpp nuyu nañ leen bu baax a baax ziar leen di leen a ñaanal jàmm bu baax a baax nag te di ko sàkku ci yéen di leen wax rek nag ni leen abonné tey bés cloche de yi loolu leen di mën a permettre ngeen di mën a jot suñuy video ñu ñëw ak yéen nag ci suñu série bi du choix soit nag nekk série boo xam ne macha allah série bu am chance la série bu neex la tamit série la boo xamante ne ni macha allah ñi koy joué ñëpp dañoo nekk nag ci xolu Sénégal yëpp. ñuy waxtaan ak yéen nag ci li nga xam ne rek moo di série bi nag di épisode huit ñu toll ci fi mu nekk nii da leen abonné nag tey bés cloche de notification yi encore une fois bu leen koy fàtte ki nga xam ne nag moo di Guèye nag ñëw na ci kër ki nga xam ne mooy Fayla Baron bi mu ñëwee nag ci kër Fayla Baron nag Fayla Baron jaaxle na trop parce que euh, question bi mu ko njëkk a posé rek mooy lan ngay def euh, sama kër gay nag ne ko ñëwuma fi nag pour waxtaan ñëwuma fi nag pour waxtaan ak yow ci jàmm damaa bëgg nag alalu jirim bi ngeen xam ne da ngeen ko foqati nag moomoo leen ko ngeen delloo ko borom ndaxte nag da ngeen cee amoon man ma am ci baaba deen am ci sangomar am ci ñun ñëpp nag nañ leen gore delloo ki nga xam ne moomoom alal ji alalam ki nga xam ne nag moo di Fayla Baron nag tiit na loolu moom mooy le baron nee na ko nag euh, benn dërëm a ngeen ko laal dara laa du delloo ki nga xam ne mooy borom alal ji ndax yow na nag nekk na ci kër gi ki nga xam na yoon ba mu ñëw nag ba fekk ko ci bi nag da koo wax ne ko nag danga maa a baalu àq bi nag xamal ko ne ko lan moo tax nag ma lay baalu àq ma ne ko danga maa war a baalu àq parce que sama tànk yi may yàq rek ñëw uti